mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suñu fanweereelu bunt ak ñaar ci suñu téere bi di risaala bu ibn abi zayd al xayrawaani bunt bi ñuy paase des na ay bind incha allah dana am luñ ci junj waaye ñu jël baabun fi nikaax wa talaaq muy mi ngi noonu bu dee Samrudaani bi yaa ngi ci 435 bu dee mool bu xonq français bi mi ngi ci 67 fi nikaaxi wa talaaqi wa rajaa naam muy 32e bunt bi rek mbokk yi alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain tey jii mooy ñaar fukki fan ak ñaar ci jumada saaniya ci atum 1441 di tombeeg 16 février 2020 ci téere bi ñuy topp di risaala bunt bi ci mujjoon mooy buntu nazar nazar boobu bokk na lañ ca waxoon jàng nañ ci lu bari waaye lañ cay mën a tënk mooy njëlbeen bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf koo tere xeet yu jëkk ya yàlla tagg na leen ci dañ daan matal ay nisër doonte ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la feddalee ci shari'aam képp ku nisar dara na ko matal waaye nag daf daan tere xeet bi di ko def loolu am ay façon mooy ki nga xam ne dafa nisar ak jaamu yàlla kooku moom da koo war a def amma bu ngante ami da koo war a kafaara kafaara mooy lan mooy nga leel fukki miskin wala nga jox leen lu ñu mën a sol wala nga daldi goreel jaam su dee ne nag yooyu yëpp mënoo ci dara nga doog a woor ñetti fan ki nga xam ni dafa waat ci ne day def loo xam ne lii lu xaram la waat ne dana ko def ku mel noonu lañ koy wax mooy ne jéggulu boroomam subhanahu wa taala ca bañ a def lu xaram loolu su paree mu daldi def la nga xam ni moom mooy kafaar amma bu dee ne dafa def loolee mu waxoon kafaara ba waratu ko waaye bakkaar ba topp na ko loolu bokkoon na ci li ñuy jotul woon a jàng bokk na ci luñ jotul woon a jàngit mooy waa ji waat araamal ci boppam dara loo xamee ni nii islaam da koo daganal araamal naa ne dootuma lekk yàpp araam nisër naa ne dootuma naan ataaya ila axiri nga araamal ko sa bopp ku mel noonu dañ naan dara waru ko xanaa lu dul jéggulu boroomam kese waaye bu wëlbati koo naan ataaya it loolee amul kafaara bu muy def bu dee ne nag lii nga xam ne mooy mazhab Malik ci li téere bi jàngale moom def naan xanaa lu dul kii en araamal soxnaam ñoom dañoo gis ne soo nii sa soxna araamal naa la loolu di firi ne fase nga ko ñetti yoon ndax soxna du araam borom këram lu dul da koo fase ñetti yoon kon foo ko waxee araamal naa la du dagan ngay sëyiteeg moom lu dul gannaaw ba mu sëyee beneen sëy loolu nag gisuñu mazhab Maalik la boo demee ci yeneen i borom xam-xam ñoom gisuñu loolu ba dañuy wax sax la ca gën a dëgër mooy lu mel noonu dañ koy kafaara rek jëlaat sa soxna waaye ba tey sa soxna la bokk loolu mooy li gën a am solo ci bind yi ñuy fàttaliku teg na ci lu bari loo xam ne jamono moo ca toll woon jamono ba muy bind ab téeréem ca mooy ñiy nisar naan dañuy dox ba Makka ak yu demee noonu waaye jàpp nañ ni lii ñu jot a wax boo ko booleeg lañ jàngoon dimanche passé lu bari ci lu wàllu nazar moom da nga ko xam loolu moo tax tey ñu ngir gagner temps ñu ne nañ jël bunt bi nga xam ni mboolem kuy jullit itteel na la mboolem kuy jullit itteel na la nit mën naa dund ba xëy dee ca du def nazar du gis sax ku def nisar amma wàllu sëy mbokk loolu moom ñépp la yitte sëy nga am sëyoo mi ngi noonu su ko defee yow mi yor sa téere ñu bokk jàng mu ne lii day baabun la bunt bu mu lay ubbil la fi nikaaxi ca la nga xam ne mooy ab sëy wa toloq wa toloq ak la nga xam ne mooy fase wa rajaa ak delloo soxna sa nga fase woon wa zihaar ak yemele sa soxna ak sa yaay wal ilaa ak waat ne dootoo jegeeti sa soxna wa li'aan ak la nga xam ne mooy rëbbante ci diggante ñaari woy dencante wal xulu ak soxna si nga xam ne daa delloo ak canam ngir génn ci sëy ba mu mujje ko warada ak la nga xam ne mooy nàmpalante ci biir lislaam yii kon nga xam ni nekk na juróom ñetti buntu nee na dana la ko jàngal ci bunt bi mu tàmbali ak yow mu ne wala nikaaha illa bi wali ab sëy day du am xanaa lu dul kilifa ak ndaw sa moom moo ko maye wa sadaq ak can goo xam ne dañ koy génne wa shaahiday adl ak ñaari seede yu maandu fa in lam yushhida fil fil aqd bu dee seede woowuñu ba ñuy fas sëy ba fala yabni biha hatta yushhida du mën a ànd ak moom nag ci lal xanaa lu dul dañ koo seedeloo ay nit wa aqallu sadaqi rubu dinar la gën a néew ci can mooy genn wàllu dinar wali walil abb dana ñeel baay in kaaxa ibnatihi mu dugal ci sëy doomam ju jigéen al bikri koo xam ne janq la bi gayri izniha ci loo xam ne du ànd ak muy laaj ndigalam wa in balagat doonte na janq ba mat na mooy comme tàmbali naa gis règle wa in shaa shawaraha su ko neexee it mën na caa diisoog moom wa amma xayrul ab amma nag koo xam ne du bàyyi moom fil bikri ca du ca ca jànq ba mi ngi noonu was wasi yi moom waaw wasiyu aw xayruhu na doon kookee day nekk ku ñu dénk xale ba xale bu jigéen ba aw xayruhu wala keneen ku dul moom fala yuzawijuha ku mel noonu du ko dugal mukk ci sëy xatta tabluha lu dul ne jànq ba dafa majeur wa iznuha lan mooy ndigalam mooy sumaatuha buñ ko laajee mu nappi wala yuzawiju sayib kenn du dugal ci sëy nag koo xam ne mas naa jaar ci sëy abun wala xayru du bàyyi du keneen illa bi ridaha lu dul ci ngërëmam wa ta'zanu bil qawl mu joxe ndigal ca wax ja nga xam ne da koo wax mi ngi noonu mbokk kon bunt bi ñu jàng lim lay jëkk a wax mooy sëy du am lu dul ci wëli ndax ci lislaam gis nañu ne jigéen du maye boppam jigéen du maye boppam fokk dafay am kilifa boo xam ne moo koy maye doonte ne kilifa boobu dana ñëw ci détails yi gannaaw ba waaye kilifa bi it dañuy gis ne fokk mu nekk jullit masalan koo xam ne dafa tuub dugg ci lislaam baayam di yéeféer wala frèram di yéeféer yéeféer du nekk kilifa jullit fokk mu doon it ku majeur fokk mu doon ku ànd akum xelam da ngay gis ne yii munta manki ci ka nga xamee ne mooy wëli bay maye ñaareel bi mooy sëy il faut mu am ak can moom la borom bi ni wa aatu nisaa saduqaatihinna nihla képp ku ngeen di takk jox leen ko ak can ñetteel bi mooy fokk mu am ñaari seede yu moom kon kilifa gaa ngi nii teew na can gi joxe nañ ko wala tudd nañ ko am nañ ñaari seede yu seede su dee maye na da ngay gis ne sëy boobu baax na waa ja nga xam ne joxe na can kilifa soxna sa woo ñaari seede ñu daal di leen di maye da ngay gis ne loolee moom nekk na loo xam ne nii sëy ba dagg na sëy ba dog na mooy mi ngi noonu naam waaw ku tudd Samba Dia bu dee mi ngi ci jàkka ji ñu ne dañ koy woo d'urgence waaw kon loolu mbokk da ngay gis mënta ñàkk ci sëy léegi nag ki nga xam ne muy wali mën na dajeeg benn waay mu ne ko may ma sa doom diw mu ne ko may naa la ko mbokk loolu sëy bi dog na may ma sa doom may naa la ko xanaa doo kaay bi may la sama doom mu ne ah kay nangu na nga ne ko may naa la ko jeex na mooy sëy bi am na fekk kenn séedoo ko waaye nag waa ji balaa ànd ak soxna si ci ab lal fokk ñu jël lu mu néew néew ñaar ñu maandu ne leen xam leen ne ah diw kat mayoon naa ko sama doom su ko defee même bu dee fekkewuñu ba mu ko koy may waaye wëliyu bi moom seede loolu ne kii diw mayoon naa ko sama doom ñoom ñu seede ko su boobaa sëy ba day doon sëy boo xam ne sëy bu baax la loolu lu mu ciy déggee mooy kon sëy boo xam ne nii seedewuñ ko islaam du ko nangu nga dajeeg ne dag may naa la sama doom mu ne d'accord ngeen ànd dem di sëy ca kenn seedewul loole islaam du nangu sëy bu mel noonu mu ne nag la nga xam ne mooy li gën a néew ci can mooy rubu o dinaar rubu o dinaar mbokk mooy boo bëggee xam dinaar mooy 4 grammes or bu teg 25 grammes 4 virgule 25 grammes loolu mooy la nga xam ne mooy dinaar kon rubu o dinaar bi day nekk à peine 1 gramme bu teg tuuti su ko defee kon dañuy dem ci ka nga xam ne mooy jaay or boobe lu bari ci borom xam-xam yi dañ koy tënk ci vingt quatre carats ñu laaj ko fan la toll ci marché bi bu ñu ko waxee ñu ne kon lii mooy rubu u dinaar rubu u dinaar boobu mazhab Malik moo ko tëral ci seen xiyaasu bopp ndax ñoom dañoo jàpp ne tey jii islaam waa ji bu sàccee kenn du dagg loxoom lu dul dafa sàcc lu mat rubu u dinaar ñu ne kon kii nga xam ne nii it mooy ku góor kii soxna si araam na ci moom la muy def ba soxna si dagan ci moom fokk kon mu indi alal ju tolloog la ñuy daggee loxoom sàcc loolu nag mazhab Malik la waaye borom xam-xam yeneen yi d'accorduñu ak Malik ci loolu wal ndax bu ñu delloo ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi may na lu yéesu rubu o dinaar may na ci ay saaru alquran am na ku mu waxoon demal kër ga boo amee benn jaaro yoñ gu ñuul sax ma may la soxna ila axiri kon ci gàttal can amul fu mu yem ci tuutuwaay amul fu mu yemit ci bariwaay léegi-léegi it nga dégg ñu ne waaw can gi léegi bu kenn paase nangam waaye loolu xatta mazhab Malik waxu ko téere yi ñuy jàngale dañ ne du gën a néew waaye waxuñu foofu rek la war a yem can suñu borom moo tudd ci alquran wa aataytum ixdaahunna qintaara benn soxna bu dee ba ngeen ko takk da ngeen ko jox qintaar boo ko qintaar am na ñu koy firee mooy mille dinar mille dinar am na ñuy firee loolu qintaar am na sax ñu koy firee lu gën a garaaw loolu naan derop nag bu ñu sarse or ba mu fees loolu mooy qintaar waaye ala kulli xaal trésor bu rëy la kon soxna si da nga ko joxoon dix millions cent millions suñu borom nee na boo ko fasee bu ci jël dara mu lay won kon ni can amul fu mu yem mi ngi noonu ba am na jeexital bu ñuy wax ci Omar ibnul Xattaab mas nay xutba di wax naan moytu leen ni ngeen di yëkkatee canug jigéen ñi bi mu paree benn soxna jóg na ko waa amirul muminin ndax da ñoo bëgg a xañ li ñu yàlla jox mu ne ko lan la mu ne ko suñu borom nee na wa aataytum ihdahunna qintaara bu ngeen joxee kenn ci yéen ab trésor Omar na ko hee wax nga dëgg de ndekete jigéen ñi sax ñoo gën a xam Omar fiq yaa ngi dégg ala kulli xaal ci gàttal mbokk can amul lu muy néewi can amul lu muy bari mu ne nag bu ñu xoolee ki nga xamee ni nii mooy baay bi jur doomam bu jigéen na doon doom bi dafa am dix ans na doon doom bi dafa am trente ans am na droit maye ko sans mu laaj ko ndigalam sans mu laaj ko ndigalam loolu moom la borom téere bi wax ci gisuñu mazhab Maalik waaye mbokk loolu même bu ñu delloo ci gisuñu yeneen borom xam-xam yi ñu sukkandikuwaat ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne yonent bi ñaari jànq tànnloo na leen ca ba leen seen bàyyi mayee ku ñu bëggul ñoom ñépp mu delloo leen kaddu ci ne leen bu leen neexul sëy bu du am loolee kon ñu bàyyi ci xel ni forcé sa doom ci mu daal di may ko koo xam ne ni neexu ko islam reconnaître loolu déedéet donte na ñoom dañ ne bu dee bàyyi du jur am na ci droit amma keneen ku dul bàyyi nag amu ci droit moom lu dul ne dafa laaj jànq bi ndax bëgg nga muudu caam su ko defee su jànq bi nappee waxul dara am na droit maye ko amma su ne ko déedéet amul droit maye ko loolee kon moom lay jàngale ci wàllu googe waaye règle boobu mu wax ci kudul bàyyi règle boobu daa war a ëmb yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na al bikru tustazan wa iznuha sumatuha mooy jànq bu ko mayee lu dul nga laaj ko doonte ne bokk na ci ay ndigalam mu noppi man de diw laa la bëggoon may mu noppi waxul dara su boobaa bu la ne xamee ko waaye su demee ne ah bàyyi bëgguma ko wala mu dem ca yaaji na ah sama bàyyi ki mu bëgg may bëgguma ko amoo droit di ko may xanaa lu dul nga convaincre ko ba mu d'accord mu ne nag bu dee ne koo xam ne daa ma sa jaar cib sëy moom sëyoon na ba tas kon xam na luy sëy moom nee na ku mel nii moom kenn amul droit di ko may lu dul dafa joxe ndigalam ne waaw képp koo xam ne ma sa sëy ñu ne ko dañ lay may diw mu noppi kenn amul droit maye fokk mooy dem ba ne waaw may leen ma bëgg naa ko su boobaa ñu koy doog a may loolu mbokk da ngay gis ni mooy bind bi nga xam ne moom la ñu jëkk a jël ci wàllu googee mi ngi noonu xëy na bala ñoo dem ci beneen bind ci wàllu kilifteef boobu ku ci am ab laaj buy aju ci loolu incha allah wala ñu koy fàtte gannaaw bu ñu jël beneen bind naam ci lu aju ci liñ jot a wax naam bismillah naam bismillah naam waaleykum salaam naam ndax seede yi ay jurit la ñuy war a doon la nga xam ne mooy seede lislaam cosaanam muy jullit la ñuy doon lu dul ñu dem fu ay jullit nekkul moom moo tax suñu boroom ba mu ñuy wax ci wasiye wàllu dee daf ne nañu seedaloo ñaari jullit ñu maandu aw isnaani min gayrikum in kuntum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul mawt xanaa lu dul ngeen nekk foo xam ne ay julit nekkuñu fa su boobaa mën nañ jël ñaari ñu dul julit ñu ñuy yëg ci ñoom ak maandute seedaloo leen ci loolu waaye tant que ay julit ne nga fa kenn amul droit di jëli ay yéefeer di leen seedaloo ay sëy sëy ay julit lañ koy seedaloo doonte ne léeg-léeg it mu am ay njuumte ñu ñëw ci mbooloo mi ñëpp ñëw pour seede sëy bi gannaaw ba ñu ne yow Moodu Caam yaag Samba yeneen témoin waaw léegi ñu cëres ñoom luñ lu ñu fi wut kon yaa ngi dégg ba boo delloo ci charx Samradani bi ngeen yor day wax sax tey jii maandu ci ni mu jafee war nañ bu ñuy sëy ñu seedaloo ko mbooloo bu bëri ndax mbooloo bi bu bëri au moins am ci ñu maandu kon ala kulli xaal ñi fekk sëy bi ñooñu ñooy seede yi am maa nag diwul bi tukki naan diw diw yaay seede su dee dañ caa jublu la ñuy yóbbu ci mairie kooku mu amul benn problème waaye buñ ca jubloo ne bala ñoo takk sëy bi fokk ñu tànn ñaari ñu maandu déedéet mbokk demewul noonu wallahu aalam naam naam bismillah naam naam ala kulli xaal koo xam ne dafa mas a sëy liñ ci wax sànq mooy kenn du ko maye lu dul ci ndigalam lu dul ne xëy na ñu miin daawa bi ñu ngi ci doon dund ay fitna boori 2000 ci kenn ci waxkat yi dem di indi gisunu mazhab abu xanifa bi nga xamee ne ñoom danaan képp ko mos a sëy yaay moom sa bopp bu la neexee may sa bopp sa baay du yëg sa kenn du yëg waaye loolu mbokk bokkul lu jumhurul ulama di wax léegi nag mu des moom ci boppam gis na koo xam ne nii nekk na nawleem ci wàllu julit ci wàllu jukko ju rafet mu ñëw mu ne baayam dama bëggoon a ànd ak diw baay bi gàntal ko su boobaa dañuy xool lu tax baay bi gàntal su dee baay bi li muy gàntal da koo teg ci loo xam ne sharia la bu mu nangu moom su boobaa dañuy gis ne dañuy ànd ak moom ci loolu amma bu dee baay ba lam ko teg tegu ko ci lu sharia nangu su boobaa itamit fokk day dem ca ña nga xam ne ñooy desitu ay wali yoom na doon ay frère am ay doomam ay ay la nga xam ne rakk baay yu demee noonu ku ko ca maye sëy boobee den doon sëy bu baax suñu demee ba gàllankoor am ba ñooñu kenn nekku fa te ñu yëg dañ ko bëgg a lor su ko buur mayee dana doon lu baax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw aleykum salaam ndax ndax sëy ci jàkka lañ ko lañ ko rek lañ ko war a mayee wala ndax ci yeneen place lañ ko mën a su ko fa mayee ba ka nga xamee ni nii mooy ku jigéen ku naan jëkkër araamal naa la sama bopp mbokk jigéen du araamal boppam ka nga xamee ne mooy boroom këram ndax moom dañ koo takk te dañ koy fase moom mënul fase boroom këram boroom këram moo ko mën a fase lam man mooy delloo ak can waaye araamal naa la sama bopp loolu wax na wax ju bon waaye du tax boroom kër gi aram mi ngi mel ni li ñu doon wax sànq rek ki ne man araamal naa sama bopp yàpp araamal naa sama bopp meew du tax yàpp aram ko wala meew aram ko naka noonu la ñuy wax ci soxna si amma bu dee góor gi nga xam ne moom am na droit fase benn ñaar ba ñett su ne aramal naa la bu dee mazhab Malik ñoom dañ naan kon fokk mu sëy ak beneen góor avant muy dellu si ci moom amma bu dee laaj bi nga laaj ndax sëy moom ci jàkka rek lañ ko mën a tekkee déedéet sëy mën nañ koo tekkee fépp mën nañ koo tekkee ca kër ga ca marché ba ca tool ya ci diggu yoon ba fu mu mën a doon fu ñu mën a jaayantee rek mën na sa fa tekkee sëy loolee mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam waaleykum salaam su laajee su laajee ñu poussé ko waa déet can can moom dama wax sànq ne su dee joxane can bi wala mu tudd can bi nit ki mën ngaa ñëw ah dama bëgg seen doom ñu ne la temps ngay indi mu naa daraa ngi nii léegi li ci des nekk bor wala sax lépp mën na nekk bor ñu may ko mu fay loolee can moom dañ koy joxe wala ñu tudd ko suñ ko joxee baax na suñ ko tuddee mu gàdd bor loolee baax na même bu tuddul woon can ñu may ko ko tuddul can tey jii mu faatu da ngay gis ne bala ñu koo miraas daañu xool li ñu canee ay sëram ñu génne ko ci alalu waa ji avant ñuy miraas waa ji waaye can moom ku ñu may soxna fokk da nga génne can boobee tudd nga comme tuddoo ko wallahu subhanahu wa taala alam waaw kon yaakaar naa mënees dem ci bind bi ci topp mu ne wala tunka wala tunkahu lmaratu illa bi izni waliyiha benn jigéen du dem di maye boppam mi ngi noonu wala ñu koy takk lu dul ci ndigalu waliyoom aw zi ra'yin min ahliha wala boog boroom gis-gis ay boroom xam-xam ci njabootam ka rajuli min ashiratiha awi sultaan mu mel ni góor gu bokk ci famille wala boog bu amul buur ba fa nekk daal di koy maye wa qad uxtilifa fi daniya doonte ne wuutu nañ ci soxna soo xam ne dafa suufe an tuwalliya ajnabiya ndax kooku keneen ku dul mbokkam mën na koo jël maye ko wal ibnu awla min al abbi doom nag moo gën a yey ci maye yaayam ci baayu yaay wal abbu awla min al ax baay moo gën a yey ci maye ci frère soxna si wa man qaruba min al asaba ña gën a jege ca geño ga mooy ñi bokkal baay a xaq ñoo gën a yey wa in zawajaha al baid bu ko mayee ka gën a sori mada zalika teewul sëy boobee day wéy walil wasiyi an yuzawwijal tifla ah ka nga xam ne dañ koo dénk mën naa maye xale bu jigéen bu ndaw fi wilayatihi ca lañ ko féetewoo wala yuzawwiju sagira waaye nag du maye ka nga xam ne moom ab jànq la bu buy dëgër nekk jànq illa an yamuruhu al abu bi inkaahiha lu dul ne baayam moo ko jox ndigal ci loolu lim njëkk a wax walil wasi an yuzawwija tifla mi ngi ci jublu kon xale bu góor waa ji dañ daa jox benn xale bu góor majeuragul am nga droit takkal ko soxna bu dee yaa ko féetewoo amma bu dee xale bu jigéen nag mu ne su boobaa amoo droit di ko mayee lu dul baayam moo la jox ndigal ci loolu mu ne walaysa zawul arham min al awliya la nga xam ne nag mooy néegu ndey mooy ña nga xam ne ndey nga lañ bokk ak yow ñooñu duñu ay kilifa nijaay yàgg yu deme noonu wal awliyaa min al asaba suñuy wax kilifteefu soxna daal mooy ña nga xam ne dañoo bokk ak moom ak geño ay côté baayam ñooy maye mi ngi noonu mbokk kon day complété ci ne jigéen du dem di dugg ci sëy moom moo maye boppam wala keneen moo ko may lu dul wëli yoom mooy may mooy takk sëy bi loole ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee léeg-léeg nga gis ay kaayu doy waar ñoo xam ne wëli yu ndaw si ñoom ñépp dëppoo nañ ci ne duñ ko may waa ji ca la ñuy wax ñu teg ko ci loo xam ne sharia nangu na ko ñu dem jëli ca imam Thiam mu takk sëy bi mbokk loole islam du d'accord ci loolu ñii di waliyu yi bala ñoo jël ndigal bi ci ñoom day fekk na lay yiñ joxe islam da ko nanguwut waaye seen doom bu jigéen ñoo gën a xam intérêt bis bu amee problème ci sëy ba ci ñoom lay dellu si kon kenn amul droit di leen maye ci seen seen kaw mu ne nag léeg-léeg it mën na nekk koo xamee ne nii kilifa la bu ñu xam ci famille bu mu bokk day gis famille yoo xam ne dañu am kilifa ci famille bi mën na bañ a nekk baayu ndaw si nii doomam nii frère am waaye lu mu wax ci famille bi kenn du ko jëndi lu mu wax ci famille bi kenn du ko jëndi ku mel noonu bu mayee kenn ca famille ba it mënees na koo wéyal lii lépp bu amul it ki nga xam ne amul benn wali la fay représenté buur loolee mooy jël la koy la nga xam ne moo koy maye ca rawatina li taxoon ñuy wax liit mooy islaam ñoo daan tëral buur yi mi ngi noonu ba nga xamee ni ndaw soo xam ne nii tey jii amul kenn kuy wëleem ñu gis ko baax ku ko bëgg bu ñu demoon tey ca imam ba imam bi woo kilifay jàkka ji ñu seydaloo ne kii kat may nañ ko diw su boobaa loolee dana doy ndax moo fay mën a remplacer la ñuy tudde ab sultaan waaye ci charte mooy ay waliim nekkuñu foofee mu ne nag bu dee soxna soo xam ne daal dafa suufee imma nekk na koo xam ne ñaawaay ba daal jéggi na dayoo wala tumuranke na fa wala nangam nga xam ne kenn yaakaaru sa ne des na ko takk ñu ne kii moom caamin ba jëkk a ñëw ku ko fekkee rek na ko may ndax ndax wala muy découragé dellu gannaaw loolee kon moom lay wax ci wàllu googe donte ne ixtilaaf am na ci léegi nag mu ñëw ci waaw soxna si am na ku koy bëgg kan moo ko war a may kan moo ko war a may mu jiital loo xam ne sénégalais xamuñu ko am déet mu ne que jiitu ci ñiy war a maye mooy doomu soxna si doomu soxna si majeur moom moo gën a yey ci baayam ci maye yaayam donte ne Sénégal nga gis kuy toog di maye yaayam loolu nit ñi xamuñu ko waaye loolu da ngay gis ne bu dee musammaani ga ñoom bàyyi lañ jiital mooy doom lañ jiital man ngaa dem ci yeneen mazahib nag ñoom bàyyi la ñuy jiital yi ngi noonu waaye dal tey soxna si am na ku koy bëgg si doom ne dama ko koy may bàyyi amu ci benn kàddu bu dee doom nekku fa wala doom majeuragul kon bàyyi moo am droit maye doomam su ko defee képp koo xam ne nii mi ngi koy jël di ko may amul kenn ku am droit opposé ci keneen ku ko bëgg a maye ci la moom it fokk mu jox ko ndigal waaye bu ne duñ ko ko may ca waxam islam d'accord ci ak moom kooku amul droit maye gannaaw ba nag frère soxna si doog a ñëw gannaaw ba nag ñu xool ñi mu gën a jegeel ci wàllu bàyyi loolee da ngay gis ne moom la ñuy tuddee al asaba ñoom ñooy ña nga xam ne ñooy maye a doom ñooy maye seen sœur léegi mu des ci ni mu ko waxee bu dee ne tey benn soxnaa ngi nii am ko koy bëgg si frère am masalan mayee ko sëy boobee dana baax su dee bàyyi indil opposition ci loolu doom indil opposition ci loolu waaye même bu ñu fi nekkee ca frère mayee ko loolu da ngay gis ne maadaama ci ay mbokkam ci côté baayam la loolu dana baax fii ak amul opposition bu l'islam d'accord ci opposition boobee ci loolu lay waxit ne tey jii bu doonte ne nit ki dañ koo may la nga xamee ne nii mooy dañ koo jox benn xale bu góor mu yor ko ci këram xale bu góor boobee am na droit takkal ko soxna fekk sax ma jorogol loolee léeg-léeg ñu koy miin ci ay aada léeg-léeg suñu mbokki pël yi dañ koy def ak yu demee noonu amma nag bu dee ne xale bu góor buñ xale bu jigéen buñ la dénk amoo droit di ko may kenn ca majourul xanaa lu dul bàyyam moo la jox ndigal ci loolu gannaaw ba nag mu indi beneen problème ca mooy côté ndey mu ne côté ndey ñoom du ñu mayee te moo ko xam ngeen Sénégal moom li ëpp ci sëy nijaay yi ñoo koy mayee waaw nijaay yi ñoo koy mayee ala kulli xaal lii mooy lii am ci mazhab Maalik mazhab Maalik ñoom dañ naan ñi mbokkal bàyyi li ñuy sori sori ñooy wëli am maa ko ci nijaayam ñooñu du ñu ay wëli bu dee nag dañ leen a jox ndigal mbokk ki war a maye moom bu gisoon fii ab chinois julit na ko mayel ma sama doom su ko mayee dara nekkul ci loolu kon côté bàyyi bu ñu joxee ndigal waa kër nijaay bu ñu mayee moom amul problème xanaa kay fii mbir bi nekke mooy nijaay mayee ab jarbaatam ca bàyyee mi ngi fi ay frère a ngi mi fi yéeguñu ko moom mu mayee ko ñoom dañ naan sëy boobu baaxul loolu ci mazhab Maalik doonte ne nii fii la xam ne soo dellu woon ci yeneen mazahib it ñoom dañ naan sëy daal lañ ciy seet mooy soxna si dugg ci loo xamee ni nii ay lorom du ca nekk ak suufeem du ca nekk buñ ko cay gàcceele loolu nag ñu bari ci ñoom dañ naan ni ka bàyyi bañe la ko nijaay di bañe ni ka frère bañe la ko nijaay di bañe kon bu ko nijaay mayee ci cadre boobu dana baax waaye daal ngir mucc ci ixtilaaf galluwaay ñi ngi ñaan nijaay booy dem ba may sab jarbaatit laajal ndigalu kilifa ca côté ku góor ka bañ jox lu ndigal soo ko mayee insha allah loolee moom amul benn iskal loolu mi ngi noonu kon ci wàllu googu loolu kon mënees naa jël beneen bind ba tey mu ne mu ne it wala yaxtub kenn du ñëw di laaj soxna ahadun ala xitbati axiihi ci kaw laaj soxna mbokkum julitam kii di ñëw di ñaan soxna nga yëg ko amoo droit di ñaan soxna ci kawam wala yasuumu ala sawmihi amoo droit di waxaale ci kaw waxaaleem wa zalika ida rakana wa taqaaraba ca loolu mooy buñ demee ba jengante ba jegante ci wàllu ci ci déggoo su boobaa amoo droit di dugg ci loolu wala yajuuzu nikaahu shigaar du dagan la nga xam ne mooy sëyu shigaar ca mooy mayente goo xam ne wa huwa al budu bil budu mooy maye pay ci kaw pay mi ngi noonu ca daan ci ñëwaat insha allah wala nikaahu bi gayri sadaq bi gayri sadaq sëy du am fekk ne can du ca am wala nikaahu al muta islam nanguwul sëy boo xam ne dañ koo limité fu mu war a yem mais muta wa huwa nikaahu ila ajal te mooy sëy boo xam ne dañ ko wutal dig bu mu war a yem wala nikaahu fi al idda kenn amul droit maye soxna ci la nga xam ne mooy idda soxna idda idda idda ba wala ma jara ila xërër kenn du maye it sëyit du dagan ci loo xam ne ak war da caa nekk fii aqdin ca pas-pas ba aw sadaq wala boog ca càng wala bi ma la yajuzu bayuhu kenn du maye soxna it ci loo xam ne kenn amul droit di ka wëlbati ko di ka jaay mi ngi noonu mbokk day ñëw ci wàllu xitba mooy yënga ne waa ji mi ngi labat doomu jàmbur dem nga ba yëg ne a moom kat nangul nañ ko nangul nañ ko su boobaa araam na nga ñëwaat di leen proposer na yow it da ngaa bëgg doom ci amma bu dee da cay wax rek ca yéegoo na nangul nañ ko yooyu bu la neexee ñëw wax i ngi noonu bu la neexee ñëw wax bu dee ne yéegoo na nangul nañ ko ay wax rek la aw it bu la neexee ñëw wax ca loolu da ngay gis ne kii di Fatima bintu Qays imam Ousmane Gallaaju rahimahullah wala boog Ismaïl Gallaaju hafizahullah mi ngi wax fii ci li passé Fatima bintu Qays ba mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day sama cënji bi kii di Muawiya ñëw na ne daf may labat Usaama ñëw ne daf may labat Abi Jahm ñëw ne daf may labat waaw loo may proposé mu ne ko demal nga sëy ak Usaama kon bu dee jëm ñi waa ji day wax rek yooyu bu la neexee wax waaye boo yéegee ne nangul nañ ko amoo droit nag dem di duggaat ci loolu waa ji nga xam ne dafay ñëw di jaay di jëndanteeg benn waay nagam këram ñu deme dem ba jege bay d'accord ci prix amoo droit roof am maa koy ñëw wax ay waxam rek léegi bu la neexee ñëw wax say wax mais daal boo yéegee ne ña ngay dem ba jegente yu juboo amoo droit di ci dugg loolu lay wax ci wàllu googee gannaaw ba nag lay wax du dagan nikaahu shigar te loolu mooy arab bi dañ ko doon def mooy lan am naa sama sœur wala sama doom bu jigéen gis naa sa doom bu jigéen ma bëgg ma ne la waay sëñ bi kaa ñu weccoo waay yaa jël sama sœur ma jël sa sœur su ko defee nga jox ma ma jox la benn can du ñeel jigéen ñi loolee mbokk islaam da koo da koo araamal da koo araamal bokk na ci nikaax bi xeyri sadaq te loolu it mën naa nekk ci kaay ma may la sa doom jë kaay may ma sa doom ma ma ma ma ma ma ànd ak moom ci sëy waaye nag dama la jox cande dama la jox cande mbokk lislaam d'accordul ci loolu lislaam d'accordul ci loolu can bi lu mu néew néew dañ koy joxe can gi moom lu mu néew néew dañ koy joxe loolu mi ngi noonu mu ne bokk na ci nikaaxul mutaa mutaa mooy point bi gën a rëy bi teqale ahlu sunna ak waa chia ci wàllu sëy mbokk lan mooy mutaa mutaa mooy nga dajee xale bu jigéen nga ne ko dama bëggoon waaye ñu mutaa guddik tey mu ne d'accord d'accord nga yëkkati mille francs jox ko fanaan ak moom bu subaa sëy bi jeex na waaw amul idda amul leneen amul kii mën na nekk euh, une heure de temps un mois un an ça dépend ngeen d'accord ci loolu waaw mbokk loolu lu ko wuteeg njaaloo dara wutale ko njaaloo yaa ngi dégg moo tax chia yu bon yooyu comme ñoom dañ ne seen noon bi gën a rëy ci kaw suuf mooy Omar ibn Khattab comme ñoom dañ ne Omar moo ko araamal moo tax dañ naan budul woon ak Omar benn julit da njaaloo yaa ngi dégg ndax ka nga naroon na njaaloo da ngeen di mutaa mutaa rek mu jeex yaa ngi dégg donte ne ne ci at yi passé am na ay chia yu nekk ci réew mi dem ci benn télévision su ma jéemul rajo télévision dunia la sax dafa saxal loolu ne biñ jege biñ génnee police da leen arrêté mbokk lu gën a dangereux loolu lu gën a dangereux loolu xale yi góor bu ñu dajee génnee récréation sax bu la neexee mutaa koo dajal nga def mutaa d'accord na rek bàyyi du yëg ndey du yëg kenn du yëg mbokk loolu ku ne xam ne leen njaaloo cent pour cent loolu tax l'islam d'accordul ci loolu bokk na ci loolu it mbokk mooy li ñuy tuddee sëy ci biir idda waa ji dafa faatu bàyyi soxna bi soxna bi war a toog quatre mois dix jours avant quatre mois dix jours yi ay gars yi yàkkamti ba takk sëy bi sëy boobee mbokk sëy bu xaram la dañ koy tas bu dee mazhab Malik sax ñoom dañu naan su dee waa ji jot na ànd ak moom ci lal dañuy araamal seen diggante ba faw li ngeen noonu dañuy araamal seen diggante ba faw moom la ñuy wax règle ci sharia man istaajala shay'an min ghayri awaanihi xurrima mi ngi noonu des na koy araamal ci moom képp koo xamee ni nii da nga xool mbiru sharia mi ngi noonu nga yàkkamti ko uqiba bi xirmaanihi dañ ko koy araamal loolu mooy mazhab malik donte ne yeneen mazhab wax nañ leneen waa ji dañ ko dafa fas soxnaam am na droit ñetti règle ñu takk ko ca ca la nga xam ne nii matagul te loolu it léeg-léeg erreur di ci am te mooy ñi jàpp ne trois mois rek la ñuy xool déedéet mbokk jullit soxna mën nañ koo fase mu toog un an fekk iddaam jeexul rawatina buy nàmpal am na ñu bari bu ñuy nàmpal duñu gis règle mu ne it lépp loo xam ne wor da caa am masalan tey jii kii dafa maye soxna daa di doon kam nga xam ne moom la proposé woon waaja ak kam ka may bokkul loole da ngay gis ni islam nanguwut loolu ngay proposé ni kii dama lay may ab jànq fekk jeeg la bu sëy sëyaat wala lépp loo xame ni nii dafay doon ca pas-pas ba na doon waa ji dafa ñëw mu ne kii kat may wëli yoom may naa la ko te fekk ne bokkul ak soxna si dara ngi noonu bokkul ak soxna si dara loolee da ngay gis ne ay kaa la yoo xam ni ñu ngi ma ci nettali benn boo xam ne nii bu yàggul dara bu amoon fii ci Abu Ubayda ci kaa yu demee noonu bi leen Cheikh Ousmane Gallaajo laajee ndekete kooku ñëw na mooy bàyyi soxna si bokk soxna si bokkuñu dara ñu ngi noonu léeg-léeg it mën na nekk ca can nga aw sadaq waa ji nga xam ne dafa naxaate ci wàllu can loolu di ngay gis ne baaxul proposé ne nangam bii moo ko joxe fekk ne loolee moom moomu ko sax waaw wala loolee nam ko waxee demewul noonu yooyu yëpp da ngay gis islam di d'accord ci loolu mu ne it ki nga xam ne li mu indi def ko can kenn amul droit di ko jaay nga doon loolee sàngara la nga doon loolee mbaam xoox la wala loolee ay lu mu mën a doon ci li l'islam xaraamal loolee mbokk kenn du ko def la nga xam ne mooy ak can mbokk kon jàpp naa ni mënees na bàyyi bilal mu nodd la ci des ñu jagleel ko laaj yi mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain su dee ni ñoom dañoo taxaw ñu leen di jaay kat kii nga may suñu doom ñun d'accorduñu ci d'accorduñu nga may ko suñu doom ngir nangam ki nangam ki nangam loole da ngay gis ne sëy boobu lislaam du ko nangu lislaam du ko nangu ndax nijaay amul droit maye doomi jàmbur loole ca wàllu gu mel noonu su ko defee kon liñ ciy wax rek mooy nijaay mën naa maye su dee maye na loole waru ko woon a def waaye waa kër ko góor ki suñu ñëwee ñoo naxanteeg ñoom ba ñu wéyal sëy bi sëy bi buñ ko wéyalee dana wéy comme liñ lay wax ci ko soxna soosey ñëwoon ci yonente bi alei salatu wasalaam na ko sama baykat ngir yokk personnalité am tax la mu bëgg maa may diw te man bëgguma ko man man d'accorduma ci yonente bi alei salaam woo ko ne ko amoo droit def loolu su la neexee yow soxna si mu wéy su la neexee sëy bi fi lay yem mu ne damaa bëggoon jàngal bàyyi ne amuñu droit maye seen doom kon baay bi amul woon droit maye ko ci loolu waaye ba soxna sa joxe ndigal wéy na kon it nijaay bu dee dafa maye ca du ndigalu baay su baay joxe ndigal ci wéyal sëy bi dina wéy mais bu bàyyi taxawee ne sama doom mayloowuma la ko su boobaa da ngay gis ne sëy boobee kenn waru ko wéyal wallahu subhanahu wa taala alam non waaw xaar xaar waaw bismillah waaw mu ne mu ne mu ne waaw waaw jëkkëru mag loolu moom du wali waaw jëkkëru mag du wali xanaa kay rakkam la ñuy wax rakk ji bu dee ne majeur na su mayee sëram loolee da ngay gis na sëy ba dana baax su dee ne kay bàyyi ba opposé wu ci sëy boobee sëy bu baax la amma magu jëkk ma ma sa sa jëkkëru mag moom koo koy siqul ak moom dara tey jii bu mag ji dee woon moom sax day wëlbati ko takk ko mën na ko takk kon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam soxna si dañ ko may kiñ ko may nag bëggu ko njaboot am ca njaboot googu njabootu sharia la baayam kay moo ko toon ci jël aqam waaye kenn du ko tudd si njaalo mooy njaboot ga njabootu sharia la waaye baayam tooñ na ko ndax amoon na aqu tànn kam bëgg sëy ak moom baayam xañ ko loolu loolu la ñuy wax ci wàllu googee wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam
dañuy wax ne ku góor gi bu ko neexee moom mu laaj cinq cent mille bu ko neexee mu ne cent franc lañ ko mu joxe cent franc ba léegoo léegi loolu léegi nga gis ci jigéen ñoo xam ne dañ leen naan la seen jëkkër daf leen laaj xaalis boo xam ne nii ndaw si dina toog ay xat bu mën a am jëkkër ndek kenn du mën a fay loolu est-ce que loolu sariya la wala di ala kulli xaal la nga xamee ni nii mooy can gu ñuy delloo mooy la waaje ba muy ñëw di ñaan soxna lañ ñaka woon moom ngay indi ñu may la soxna loolu mooy can loolee nga xam ne it dañ ko dafa dañ ko ko laajoon soxna si buy bëgg a delloo loolu rek lay delloo wala la nga xam ne moo ko yées bu waaja na ngay loolu am am maa ndax waaj am na droit laaj ku lu ëpp loolu doonte ne am na borom xam-xam yu koy wax waaye loolu tegewul ci dalil la nga xam ne moo tege ci dalil mooy soxna saabit ibnu qays ba mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kii di saabit day gërëm naa diineem gërëm naa jukkoom waaye nag dëgg-dëgg yu mu yàlla yi dama ko bëggut bëgguma ko te bëggumaa def ak kéefër ci lislaam mu ne ko ah jardin bi mu la cane woon nag ndax mën nga ko delloo mu ne ko jardin baa nga nii su bëggee ma dollil ko ci mu ne ko déet dolli bu jëru ko delloo ko jardin rek nga nga moom sa bopp kon can moom lañ cay delloo mooy lañ cane woon soxna si allahuma lu dul waa ji bu ne ko jox ma mille francs ñu summeeku bu ko joxee mille francs ñu summeeku waaye amul droit di ko chantage ne ko da nga may jox nangam doog a génn ci sëy bi bu doon loola sax xul u dootul am ci soxna si ndax kon ku ku ku am ak problème sa jabar naan ko bala ma laa waa parce que jox ma cent millions déedéet la nga la nga ko cene woon loolu nga am droit laaj ko wala boog lu yées loolu wallahu alam na naam naam naam bi ñuy fas sëy bi ñaari way dencante yi nekkuñu ca dëkk ba nu ñuy def ba can can moom soxna si moo ko moom mën naa nekk France wala mu nekk feneen ñu wan ne ko ki la doon labatkat may na la can temps loolu ab xaalisam la moo ko moom bu dee ak jur la moo ko moom bu dee ak kër la moo ko moom la doon jël na ko jëlu ko ala kulli xaal moo ko moom moo ko moom nag ça veut dire que mën na ko yor keneen mën na ko ko yoral mais daal can gi moom moo ko moom bu dee woon dañ ko koy miraas bu ko neexee may may ko ku ko neex ila axiri ak fu mu mën a nekk ci kaw suuf wallahu subhanahu wa taala aalam ah waaw ka nga xam ne dafa bëgg soxna labat bi ñu xam ci lislaam way jur yi ngay laaj dama leen bëggoon a may sa dama bëggoon ngeen may ma sa doom loole mooy la nga xam ne mooy labat yiñ xam ci lislaam mi ngi noonu amma bu doon tene ne ci loo xamee ni nii yow amul ay lor ak wéetaay nga fexe ba laaj soxna si ndax moom bëgg na la su boobaa islamique du bañ loolu rawatina société yi nga xam ne nit ñi xamante wuñu ndax bu njëkk nit ñi dañ daan juddoondoo yaroondoo képp kuñ ne la ndax bëgg nga diw day fekk xam nga ko mu wuteeg li nga xam ne mooy xew Dakar te ji soxna si bu bàyyi bi ñëw na ko waaw ndax bëgg nga Samba Thiam soxna si xamul kuy Samba Thiam kon loolee dara nekku ci nga xool ndax moom bëgg na laam bëggu la waaye nag labat moom boo xam ne lislaam da koo nangu nga xam ne bu ñu ne xisee ba nangul kenn amul droit ñëw kooku du xale bu jigéen bi ma koy joxe bàyyi rek moo am droit joxe ko su bàyyi nangulee kenn nag ñu xam ne léegi labat am na ñu doog a xool nu ñuy tekke sëy bi wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam waaw loolu mooy bind bi waaw naam waaw wala kulli xaal bu dee laaj bi nga jëkk a laaj mooy sunu bind bi ñëw dimanche insha allah mooy koo xamee ne nii wor dañ koo wor ci wàllu pas-pasu sëy bi xam ne sëy bi baaxul kooku yi moom la ñu war a jàng ca mooy sëy boobu moom dañ koy teqale dañ koy teqale fas ko mu mu mu jeex bu dee wàllu can gi nag su boobaa bu dee war am na ca dañ naan dañ koy teqale avant muy ànd ak moom su xisee ba ànd ak moom nag su boobaa ñu wax ko mu indi can par A ou B indi loo xam ne lu mel ne la ñuy may ay sëram la loolu incha allah bu ñu fi yàlla dajalee dimanche moom la ñuy jëkk a jàng mu des ci wàllu li nga xam ne da nga koo mujj laaj waa ji dafa takk soxna biñ ko mayee soxna si gannaaw ba ñu ah mais idde bi jeexul de ñu xam ko ñu la dañuy tas sëy bi sëy sax déjà amu foon dañ koy feccee mooy sëy amu foon su dee ne idde bi mat na mu ñëw takkaat mais bu dee ne dafa takk soxna si ci biir idde bi ba pare sëyeeg moom ci biir idde bi bu dee mazhab Malik ñoom dañ naan dañuy tas seen diggante ca aaraam na ko ba faw seen diggante dootul dagal ba faw mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam yaakaar naa mbokk waaw waaw ñu mujj ci mbokk bala rek bismillah waaw waaw bismillah mu ma ana pa pa papaam mi ngi dund papaam gaañu na magu papaam moo ko yor muy bëgganteeg benn waay mu ne du ko ko may waaw mooy mooy liñ doon wax sànq rek wëli ndaw si am na droit nit ñëw di bëgg doomam mu ne dama la ko may yaa ngi dégg loolu gar naa di ki ko gën a mën a expliquer mooy Cheikh Ousmane Gallaajo moom yéen xam ne di waxe doyu ma duma la ko may yonent bi alei salaam dane isa jaakum man tardawna diinahu wa xuluq fa zawijuhu su ngeen gisee koo xam ne gërëm ngeen diineem gërëm ngeen jukkoom na ngeen ko may waaye su doom jóge fa léegi waa joxe ma nga tokkob jaara langal tuba ji bari arastam ñu ne bàyyi kii laa bëgg da nga ko koy may déedéet koo xam ne ni gis nga ko du julli da nga ko koy may koo xam ne keneen la yaakaar di ko sujjuutaloo kii da nga ko koy may déedéet donc lu nga may il faut sa doom bala nga koo maye islam dane kii xale bu jigéen la moom affaire amour la xam xamul lan muy xew ëllëg yow nag yaa am expérience yaa xam diine yaa xam nangam kon moom du moom mooy tànnal boppam yow yaa koy tànnal am na droit nag xëy ne bàyyi kat diw de daf muy bëgg si d'accord nga ne kuy diw mu ne waaw bàyyi gëstu su bàyyi gëstoo ba xam ne kii kat borom diineel ju rafet la borom jukko ju rafet la si doomam bëgg na ko mën na koo may koo kii am maa bu dee bàyyi gëstu na xam ne kii kat diineem rafetul wala sax am na diine naam waaye nag jukkoom rafetul ci ak bëri tey ci ndaw ñi ak bëri tey ci ndaw ñi ñoo xam ne diine macha allah waaye jukkoom moom zéro virgule cinquante ku mel noonu nag mbokk da ngay gis ne doo ko may sa doom loolu daal ñu bàyyi ci xel bu baax li ñuy bëgg a wax daal mu mi ngi noonu bàyyi dee si topp ay ndigaram loolu dul ñu dem ba yëg na bàyyi dafay lor doom ca la ñuy doog a jéggee bàyyi waaye tant que bàyyi ngi yem ci xool intérêt doom kenn amul droit jéggi ko والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين